defar gi muy defar jaam bi amul leneen lu fooree noonu kon nag loolu moo taxoon Moussa yàlla suñ borom pour mu jagleel ko si gar boo xam ne moom rek moo koy xam moom rek moo koy mën a jaamoo yàlla na ko waxal laa ilaha illallah mu ne ko loolu moom ñëpp a wax man sama yooyu sama bopp laa wax loo xam ne pour man rek la mu ne ko xanaa xamoo ni suñ jëloon addina ak li ci biiram yëpp ñu def ko teg ko ci kaw balance jël laa ilaha illallah teg ko ci balance konoon laa ilaha illallah dana dominer addina ak li ci biiram kon mbokki jullit yi mu tasawufu la yi ay jaami yàlla lañ yoo xam ne yàlla rek moom lañ bëgg yàlla rek moo leen tax a jóg melow yonent bi jikko yonent lañ meloo muy jikko yu kawe yi nga xam ne jullit bi du nekk jullit bu wér ak jullitam lu dul jikko yooyu dafa jéem a roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko yu tedd yooyu kon jéggale jéllale yii yépp melokaani jullit la lan mooy jéggale mooy jàppal nga nit ki nga dem ba yëg ne lii nga ko jàppal man nga ko koo baal nga baal ko te yàlla rek a loolu mooy jéggale lan mooy jéllale jéllale moo di nga gis ci nit ki loo xam ne dafa la te dafa moo xam daf koo jëmee ci yow matadi googu daf koo jëmee ci yow wala daf koo jëmee ci digganteem ak boromam wala daf koo jëmee ci digganteem ak moromam nga gis ko xam ko man koo dal man koo siiwal nga mel ni gisuloo nga fenati loolu mooy jëllale yii yëpp melokaan yi jullit la melokaan yi jikko ju defaru la te yëg na lii lépp melow yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallam mu doon dund ak sahaaba yi ci melokaan yii loolu moo tax ba yonent bi génnee àdduna ñun ñëpp sëgg na suñu xol yi ñun am na lu mu li seen xol yi yëg mooy am na lu rëy lu feesoon seen bët ñu daan dund loolu loolu tey gisatuñ ko kenn ko nekk am na lu xolam yëg ci ñoom saaba yi xol bu fakk boobu nag nga xam ne xol yi am na luñ yëg baax na ni ni te eh, dama ciy faral di joxe misaal ah, bañ nekkee ci daara bi di jàng feer ñi ngi nekk sëriñ daara bi saqat sax duñ ko ñeme doo ñemee saqat doo ñemee def doo ñemee wax danaa jàng rek waaye bés bu tàddoo na tey tukki naa kenn ku nekk loo mën a topp da nga ko topp loo mën a fecc fecc tinkeeku tinkeeku boo xam ne dafay mel ni yow dañ la tënkoon li la tënkoon tënk ba daweeku na tey yaa moom sa waaye buñ ne yegsi na mu mel ni kenn ku ci nekk dañoo damm say jër melaw yooyu nag nit ki di yëg te duut loo mën a laal baaraam ne lii laa la a wax mais yëg-yëg la rek ci nit ki te soo ko misaalee nit ki dana xam li nga ko bëgg a wax mooy lan yëg-yëg mooy bi nga ne moom la anas di jinji ci ne bay suulee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faxasuñ suñuy loxo awaan yi faxasa suñuy loxo rek suñu xol yi am na lu mu yëg loo ne dëgg-dëgg yegg nañ ne li nexoon am na lu nexoon ci ñun lu ñàkk am na lu doon lu ñu doon compte loo xam ne compte bi dagg sabab boobu nag mooy li tax nit ya nit ñi nga xam ne jaam yàlla yi nga xam ne yàlla rekk a leen ñor ñuy jéem a faj nag góom boobu nga xam ne doon nañ ko ci saaba yi gannaaw boo xamee ne xol bu fakk boobu gaar na leen liñ juraat yëpp mu mel ni dañ koo donn su may wax liñ juraat yëpp mooy ñi leen donn ci diine lislaam dafa mel ni dañoo donn loolu ci ñoom sabab boobu nag ci la borom xam-xam yi jógee seen itte lépp mooy defar jaami yàlla yi ba nga xam ne xol bu set boobu xol bu yëwen boobu dana mën a nekk ci kenn ku ci nekk ba nga xam ne danañ mën a jox yàlla li nga xam ne moom la soxlawoo. Hmm? Hmm? mutasawwifuuna yi ba tey ñi nga wax ne jaamat yàlla bi su fekkoon ne dafa boole boppam ci mutasawwifuuna yi waaye yàlla may na la genn ganaar rek ci kër gi nga ñaawal nekkin sa nekkin ak ganaar boobu ci kër gi nga ñaawal nekkin ak moom weddi nga sa bopp bokk ci mu tasawifoona yi kon naka noonu bu fekkee jullit bi bu fekkee mu ñu limaale boppam ci mu tasawufuuna yi te jombalewut boppam wax lu du dëgg su boobaa weddi na boppam ndax jullit buy fala felal moromam di wax loo xam ne la muy wax du dëgg ci moom su boobaa mi ngi jàpp ne kii ñuy waxat lii mu ko wax loolu la kii di jàpp ne li mu ko wax mooy lii dëgg waaye la nga xam ne mooy dëgg ga moom waaje xamu ko looloo tax mu di ko waxal loo xam ne amut su waaje xamoon dëgg-dëgg mooy kan moom jamono bi ñuy wax lu duhu dëgg xam ci ñuy waxat dëgg-dëgg xam ci jamono bi muy wax ak moom ba di ko wax du duwul dëgg kon dana gis ne wax dëgg moo gën a simple moo gën a oyof ci moom te it dafay gis ne wax dëgg rek mooy li mën a am waaye wax lu duwul dëgg mën kaa loolu moo tax waaja laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa dama bëgg a dugg ci diina lislaam waaye da naan sàngara di sàcc di njaaloo te bëgg naa dégg naa yi yëpp diine bëgguñ ko yonent bi nga ko ndax mën nga maa moytul fen mu ne ko d'accord naa mën naa laa moytul fen mu ne ko soo ma nangoo moytul fen jox naa la diine lislaam waaye daal di dugg ci diine jaayante yonent bi ci du ko feral mukk bim jaayanteeg moom ci ne du fenal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bim doree ba war a dem naani sangara mu gis ne jaayante woon na ak yonent bi ne du ko fenal bu ñëwee ba ko ne ko naan sangara su ko ko yonent bi laajee mu nangu ne naan sangara rek danañ ko jëkkal danañ ko teg yari li lislaam santaane ci moom danañ ko def mu ne kon nag naa bàyyi sangara bi jarut may dem di waxal yenent bi loo xam ne du dëgg te jaayante naa ak moom la du ma ko fenal wax ko ni dëgg ñu teg ay daan ci sama ko loolu dara jarut ba mu jógee ci loolu war a dem ca la ca des kenn ko ci loolu mu bàyyee ko fa bàyyi yooyu yëpp ñëw ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jaayante gi ma jaayante ak yow la du ma la fenal tax na ba lépp lu bon loo xam ne maa ngi ko doon def rek bàyyi nag kon mbokki jullit yi dëgg-dëgg xam-xamu tasawuf mooy xam-xam bi nga xam ne ba fi yenent bi nekk sallallahu alayhi wa bépp jaam ak yàlla boo xam ne intéressé wu ci diine l'islam ba jël diine ci yenent bi rek daf lay pikiiraale xam-xam boobu ngay dund jikko yi nga xam ne moom lañ soxla ci mu tasawif mu di ko dund moo tax ñoom ñépp ñu nekkoon ay tànneef kon nag tey buñ demee ba gisatuñ yonent bi te ñoo ngi ñaan yàlla yàlla buñ bokk ci ñi nga xam ne yàlla daf leen a xañ gis yeneen bi yàlla buñ bokk ci ñi yàlla nattoo ñooñu yàlla ñu bokk ci ñi nga xam ne seen gis seen ak gis lu teggeeku ci dëgg-dëgg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla boole ci ñoom kon gis nga nekk ak yenent bi ci àdduna ci diine ji di ko dirise dafa matale matale goo xam ne ni mu ko doon joxee jaaru yàlla yi joxin dafa matale moo tax ku jël diine rek kiiraay li dox ci diggante jaam bi ak boromam kiiraay loola dafay daj li fi yenent bi jógee nag kiiraay loolu dafa ñëw dox ci diggante jaam yi ak yàlla mag ñu baax ñi ñëw di jaamu yàlla ba gis ne yoon wii mooy yoon wi nga xam ne moo mën a dimbale jaam bi ba kiiraay yi dox digganteem ak boromam dañ kon jikko yii ñu wax mooy jikko yi mutasawif melo yii ñu wax mooy melokaani mutasawif waaye ak tasawuf duhul juddu du tur du sant duhul deret boo xam ne da ngay wax ne sama maam wala sama baay nekkoon na ko nekk naa ko déedéet jikko la boo xam ne dañ koy jikkoo kum nekk ci yow ngay moom kum newut ci yow du wor te jikko yooyu it dañ koy uti ndax arab dafay wax ne faatu di shay'in laa yu'tihi kenn mënta joxe lu mu amut tey loolu ngay uti su amut fi nga ne fam am rek foofu nga ko mën a utee ji moo tax ñuy wax ne mutasawifuuna yi dañoo am ay daraja yoo xam ne daraja yii mooy darajaay mu tasawifuna yi fukki daraja la ak bi ci njëkk mooy ashukru muy sant melaw woowu melaw mu la borom bi nee na alhamdulilahi rabbil alamin cant moom yàlla rekk moo ko moo tax bu mutasawif bi demee ba jeex takk ci boppam su meeku ba seet wécc ci boppam jeex ci yàlla subhanahu wa taala su boobaa melaw yàlla woowu dafay nekk melaw mutasawif bi su ko defee mu nekk jaamab yàlla boo xam ne santaakoon lay doon am na martaba bu ñuy wax taqwa taqwa mooy ragal yàlla wala nga ne taqwa mooy sax ci ndigal yi moytu koo bàyyi moytu tere yi moytu koo def yàlla moo ne huddan lil muttaqin kon melaw woowu it melaw mutasawif la ku nekkul mutasawif mënta amee melokaan woowu sax ci li la yàlla digal moytu koo ba moytu li la yàlla tere moytu koo def kooku mu tasawif rek moo mën a amee jikko boobu yal nañu ci yàlla doon la ñun am na martaba bu ñuy wax zikru muy tudd yàlla tudd yàlla ci ñi nga xam ne duñ fàtte yàlla wala fàttaliku yàlla ci ñi nga xam ne dañuy fàtte yàlla ñaari xaaj la ñii danañuy fàtte yàlla seen ak tudd yàlla tudd yàlla fàttaliku yàlla la ñii nag duñ fàtte yàlla mop ñooña seen ak tudd yàlla ñooña ñooy tudd yàlla dëgg-dëgg tudd yàlla yàlla ne uskurooni askurukum tudd leen ma ma tudd leen te kat jaami nañ bàyyi suñu xel ci tudd yàlla yow yaa ngi tudd yàlla ci sa bopp yàlla ne boo ma tuddee ci sa ci sa bopp ma tudd la ci sama bopp te xam nga ne tudd ak yàlla googa bu jëkk moom demul fekk kon tudd ak yàlla bi nga xam ne tudd na la ci boppam mbokk yi foofu jar naa xalaat bu baax a baax jar naa góorgóorlu pour dégg ko bu baax ñu ñëw ci ñetteeli martaba mooy asabru muñ daraja la ci mutasawif yàlla moo ne wasbir nafsaka ma allazina yaddauna wasbir nafsaka ma allazina yaddauna rabbahum bilqadaati wal asi yuriduna wajhahu mu ñal sa bakkan ba ànd ak ñi nga xam ne ñu ngi tudd seen borom suba ak ngoon te jubluwuñ ca nag lu may jëm yàlla rek tudduñ yàlla ngir di ut ay daraja tudduñ yàlla ngir dafa am luñ ragal loo tax loo xam ne moo tax ñuy tudd yàlla pour mu ci liñ ragal tudduñ yàlla ngir dafa am luñ bëgg loo xam ne moo tax ñuy tudd yàlla waaye ñoom ñu ngi tudd yàlla rek ngir yàlla moo ayoo ñu tudd ko te moo ne uskuroo nii tudd leen ma ngay def santaane ak yàlla boobu bim santaane ne tudd leen ma nga di ko tudd ngir santaane bu kowe boobu nga ñëw ci beneen muy juróomeel muy tawxiid tawxiid yàlla nee na wa ilaahum moo ilaahun waaxid seen borom bi di yàlla benn borom rekk la buggee boo xam ne nekkul fi kenn nekkul fi ak lenn juróom-benneel bi di mahabbatu te mooy cofeel borom bi subhaanahu wa taala ne wa lazina amanu asadu xubban lillah ñi nga xam ne am nañ imaan ñoo gën a tar ak mbëggeel ci yàlla bi juróom mi tawakkul wakiirlu ci yàlla yàlla nee na fa isa asamta fa tawakkal ala allah boo dogoo wakiirlu ci yàlla wéerul ci yàlla yaakaaral yàlla rek bi mooy a mooy fuuglu yàlla di bàyyi xel yàlla di ko resal inna allaha kaana alaykum raqiban yàlla moo wax loolu beneen bi di juróom-ñeenteel mooy al xawf wa rajaa ragal ak yaakaar wa du'uhu xawfan wa tamaan xooleen yàlla ci ànd ak ragal yàlla waaye xooleen yàlla ànd ak ak xemim kon xawfu ak rajaa nekk na loolu sax te mu boppam la wax kaju fi ci loolu jur fukkeel bi mooy tawbatu tuub tuub bi nee na fa tuubu ilallahi jamian ayyuhal muminuun laalakum tuflihun yéen jullit ñëpp na tuub jëm ci yàlla delloo leen seen bopp ci yàlla yéen ñi gëm ndax ngeen mën a bokk ci ñi nga ne dañoo texe fukkeel bi ak benn di ixlaas yàlla ne wa maa umiru illaa li yaabudu llaha muxlisina lahu diin diggaluma leen lu may na sellal jaamu boobu nga xam ne moom ngeen di jaamu yàlla subhanahu wa taala kon lii yëpp ay martaba la yoo xam ne jullit bi dafa war a yéeg maraatib yi yëpp ci goowu melokaan bi nga xam ne tuddee na boppam mutasawif nga bëree ba melo yii nga xam ne melo yàlla la nga fexe ba melokaan yi nekk ci yow mutasawif bi bëggal jaamu yàlla yëpp yéeneen ñëpp di nga yéene sa bopp lépp loo xam ne yaa ngi koo yéene pour defal ko sa mbaa nga am man-man pour defal ko sa bopp bul ko añaane kenn koo ko mën defal defal ko te yàlla rek nekk tax kon mbokk jullit yi ñoo ngi bëgg a suñu wax doonte lii ñuy wax du wax joo xam ni dafay jeex wax naa dem ne suufiyaante yi dafa bëri tur yoo xam ne tuddee nañ ko mutasawuf maanaam lan moo tax ñu tuddee tasawuf tur woowu ñi wax ne lenn ci mutasawuf fu ne yi dañoo wax ne tasawuf tuddee nañ ko tur woowu ngir ñam ñañ doon wax mooy jaamu yàlla yi nekkoon ci jàkkaay yenent bi dégg nga bokkoon ci sahaaba yenent bi sallallahu alayhi wa sallam amuñu woon benn liggéey boo xam ne ña ko doon liggéey seen liggéey mooy tudd yàlla suba ak ngoon nekk ci jàkka yonent bi alayhi wa sallam yéen a ñëpp lañ yéen a seen bopp kenn ku nekk li nga bëggal sa bopp loolu nga bëggal sa morom ñu ne tur woowu tuddee nañ ko mutasawif ngir foo fekk ab suuf yu di koy gaañoo ya lay dafay nekk kuy toroxlu nekk ku suufeel boppam nekk koo xam ne ku nekk sa moo la gënal sa bopp jikko yu kawe yooyee ñoo ñu amee ñu ne loolu tuddee nañ tasawuf tur boobu ngir ñamel amee woon melokaan yooyu seen jikko yooya moo tax ñu tuddee tasawuf tur ñu ne tuddee nañ ko ko parce que tasawuf ay yére la colaay la mooy kabar yi xar yi kabar yu nooy yooyu di nekk ci xar ñu koy wax suuf kabar googule ñu ne mutasawif jikko jooju la amee nga ni kabar googu boo loo waxee nekk ab dank ñu ne mutasawifoon yi yëpp loolu lañ mel dañoo booloo nekk benn ñu ne tuddee nañ ko ko ngir kabar googu dafa nooy ñu ne mutasawif dafay nekk nit koo xam ne ku nooy lay doon koo xam ne du am benn jafe-jafe du am benn problème foo ko fekk rek dafay nekk nit koo xam ne ku simple lay doon ñu ne mu tasawuf tuddee nañ leen ko ba tey ngir am na ay façon yoo xam ne ay colaay la yoo xam ne dañ ko sol ñu ne ay der la lu mel ni deru bëy ñu ne kii door a nekk mu tasawuf mooy sol der boobu moom lay wulli ba mu nooy ñi dafay mujj mel ni tiis yi après ñu ñëw ko ñu jox ko ko mu di ko sol ñu ne ki nga xam ne nag moom euh, kootu na ci moom moom moo moo raw tuuti ki nga xam ne mu ngi ciy door a dugg kooku mu ngi doon sol dero nag ñi nga xam ne nag ñooy ñi nga xam ne am nañ licence ci tasawuf kooku mu ngi sol deru gëléem dañ koy wulli ba mu nooy su ko defee ñu daal di koy def ay dessin defar ba mu baax ñu ne yooyu nooyaay yooyu ñu wulli deree ba mu nooy moo tax ñu tuddee tasawuf tur woowu pour melokaan yi nga xam ne moom la mu tasawuf di amee mooy melokaanu der yu nooy yooyu ngir mu tasawuf dafay nekk nit koo xam ne ku nooy lay doon du nekk nit ku jafe beneen borom xam-xam wax ni laysa tasawufu lubsu sawbi tartaxuhu wala bukaauka in xanaan mu xanuuna wala siyaaxun wala raqsun wala tarabun wala taqasun ka an taksirta majnuuna gone tasawuf wal qurana wa diina mu tasawuf doxul sol yëre yooyu ma doon wax muy der yooyu tasawuf duhul bu waykat yi di way ngay jooy tasawuf duhul yuuxu duhul tàcc duhul fecc tasawuf duhul nga bàyyi sa kawar bi mu jaxasoo nga mel ni tasawuf dëgg-dëgg duwul nga bañ a sangu duwul nga bañ a sol yére yu set duwul nga bañ a lekk lu neex yooyu yëpp duwul tasawuf te am na ñoo xam ne dañoo yaakaar ne mu tasawuf mooy ku amee melokaan yooyu yooyu du melokaan yi mu tasawuf dafa am ñoo xam ne ca bu njëkk melo yooyu lañ doon meloo bokk ci mu tasawuf yi loola génnee naa ko ci xaaj bi nga xam ne def naa loola ci waxtaan bi ma doon def ci gàmm bi moo tax du ma ci dellu siwaat incha allah waaye mutasawifuna yi dem nañ ba nekk fukki xaaj ak ñaar fukki xaaj ak ñaar yoo xam ne mutasawifuna yi nekk nañ fukki xaaj ak benn yépp safara lañ jëm ngir melokaan yañ amee tax ñu tuddee seen bopp mutasawif melokaan yooyu dëppoowut ak li yàlla digle la yàlla tere ñoom koy def la yàlla digle nanguwuñ ko def tuddee seen bopp mutasawif ñooñu melokaan yi yéefar lañ amee jëfiñu yéefar la ñuy def te ñu nga tuddee seen bopp mutasawif te ku leen gis te réere tasawuf yaakaar ne mutasawifu la yëpp jikko booba la ñu amee te fekk amewuñ di ko booba kon wax naa la fukki xaaj lañu ak fukki ya ak benn safara lañ jëm fukkeel ba ak ñaar ñooña ñooy jullit ñi akkan ñooña mooy ñi nga ne moom la waykat bi wax léegi ne bali tas euh, bali tasawuf an tasfu bila qadarin wa tatbaha alxaqa walqurana wa diina tasawuf mooy na nga sell bul tilim bul kesaw bul bul bul bul wàcc sa kawar mu jaxasoo bul nekk di lekk lu naqari di tëdd foo xam ne dafay mel ni da wax ne da ngay toroxal sa bopp déedéet da ngaa réere tey sa bopp ba mën noo jox sa bopp ba xam te ba mu xam waaye tasawuf dëgg-dëgg mooy na nga sell na nga topp yàlla na nga jikko woo jikkooy alquran na nga diine woo diine bi nga xam ne mooy diine l'islam moo tax Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mu wax ne bi muy wax melokaan li nga xam ne moom melo woowu ci lay yaree jaam yàlla yi jëm ci péew yàlla ba mu ne bi zahiri sari wa nuuril mubiini wa rabbi saalikiina bila shakkin wala rayb mu ne saahiru shariat ak alquran du leer gii daal moom lay nangal moom lay yaree saali kiina yi ñi nga xam ne ñoo sóobu ci yoonu tasawuf ba yóbbu leen tëddeem yàlla ba koy moo tax mu waxoon ne wala ummatu qasdi fiihimu an asruqahum ila hadrati bari rahimi ilahina mu ne umma bi daal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jubluwaayam bëgg-bëggam ci xeetu yonent bi mooy mu màng ñëpp jëmee leen ca péyeb yàlla mi nga xam ne moo baax yàlla mi nga xam ne mooy borom yërmande kon mbokk yi jullit yi tam xamu tasawuf cooroom bëri na lool imaamu malik radiallahu taala mu ne wa man tasawafa walam yatafaqah faqad tasandaqa wa man tafaqaha walam yatasawaf faqad tafasaqa wa man jamaa baynahuma faqad taxaqaqa mu ne ku am xam-xamu tasawuf wate woo maarifatu billah xam yàlla yooyu yëpp ci turam yi te xamuloo amuloo xam-xamu fiq déggoo sa diine kooku sindeex la sindeex la naan ndax la muy waxee ak lam judduwoo du benn la nuy waxee ca wax ja la xam waaye juddu ja ak jëf ja dafay wuuteeg la nga xam ne moom lay wax kon kooku ab sindeex la innal munafiqina fi daraki asfali mina naari jahannama munafiqina yi ñi gën a ca safara sa gën a suufe gën a tàng xam ne safara yëpp seen tàngoor dañ koy wàccee ci suufa suuf foofa mooy seen place yàlla ñu ci yàlla mosal te mooy ñooñu mu dellu wax mu ne wa man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafasaqa mu ne képp koo xam ne am nga xam-xamu fiq te amuloo xam-xamu tasawuf kooku ab faaseex la du génn ak topp la génn nag topp ndax ma nga foog ne ma ngay jox yàlla gëdd bi nga xam ne moom yàlla am ci ñi di ko topp te defalagul yàlla dara la muy def yépp pour boppam la lu tax ngay jaamu yàlla lu tax ngay julli damaa ragal a dugg safar maa bëgg ab yoon damaa bëgg tiyaabo lu ci yàlla am ci julli ga lu tax ngay woor damaa bëgg yàlla may ma aljanna bindal ma tiyaabo loo defal yàlla lu tax ngay aj màkka yàlla may ma ab yoon bindal ma tiyaabo loo defal yàlla ci aj ja demit dégg lan moo tax ngay dépenser ah xanaa bëgg rek eh, yàlla bindal ma tiyaabo may ma ma bokk ci ñu texe ji waaye topp ma it nag ndax ma am kon yow li nga def yëpp pour sa bopp la te yow boo dégluwaatee li yàlla wax ne jaa al xaqu wa zahaqa al baatilu illa al baatila kaana zahuqan da nga xam ne yow doo kenn kon du woo kenn ana looy defal sa bopp ki aajoo ñi di ko defal soxla woo ñi di ko defal kooku mooy yàlla subhanahu wa taala lépp looy def ne yàlla tax loolu xam-xamu tasawuf tasawuf foofu la jëmee jaam bi mbokk jullit yi kon tasawuf fa ngoog beneen mu tasawuf ne ñu koy wax la fatih basti rahimahullah mu ne taqaarafa annaasu fi suufi waxtalafu jahlan wa sannu mustaaqun mustaaqan min asuufi mu ne walastu annahu hazal isma xayra fata saafi fa soofi hatta sumiya soofi mu ne nit ñi uute nañ ci tasawuf ngir réere buñ réeree tasawuf yaakaar nañ ñi ngi bàyyee ci suuf bii nga xam ne mooy kawar gu nooy googu mu ne waaye tasawuf de tur la boo xam ne du may lu may waajoo xam ne dafa sell di sellal bañ ñu tuddee ko suuf yi mu ne kooku laa jox turu moo daal Cheikh ne wa haasa wa awdahu l awdihi indi wallahu mu ne nag anam gii moo gën a ci la gën a d'accord mu tasawif dëgg-dëgg dafay nekk jaamab yàlla boo xam ni yàlla rekk lay ñeexal du nekk jaamab keneen jaamu yàlla kese lay doon nekk waa jaam boo xam ne dafay am sidqu tawajuhi illallah mboolem nag maanaa yi wax yépp ci tasawuf foofu la dellu si waat ci sidqu tawajuhi laa nga dëggal nekk jaam boo xam ne bu dëggu ngay doon waaye ci lan ngay dëggu ci yàlla dëggal it ak jublu ci yàlla amul sa lenn loo xam ne dana ab sant yàlla sa lépp daal yàlla rek nga koy jox subhanahu wa taala kon loolu mooy melokaan yi nga xam ne aju na ci mu tasawif ñi ngi ñaan ci yàlla comme la ma waxoon rek ci gàmmi laay gën subaat liñ programme woon jeexut waaye léegi xam naa lan moo tax mënta jeex parce kuy wax ci ku dut jeex la ngay wax ca moom du jeex waaw man doon bëgg am gëlamaane lan moo tax mënta jeex waaye gis naa ko léegi moo di ne yàlla moom du jeex lu dul yàlla mooy jeex loolu moo tax li ñuy wax mënta jeex kon ñi ngi ñaan ci yàlla yal nañu yàlla def jaami yàlla xaqan jaam yoo xam ne duñ ñeexal lu dul yàlla suñ bëgg-bëgg suñ yëngatu suñ dal lépp yàlla rek lay ñeexal loolu yemale yàlla yàlla ñu ko yàlla def yaara bi suñ nangu woon dund dëgg-dëgg tasawuf dëgg-dëgg yàlla kon danañ nekk jullit yoo xam ne danañ ci la ñuy gën a kan mooy suñu yënant te la ñuy gën a xamee ki ñu yàlla jox ñu yënant yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy kan waaye danañ gën a xamit bu baax a baax ñun ñooy ñan ana lan cër bi ñu yàlla cëral ne daraja bi mu bi mu ni mu toll wala mu toll kon ci lañ ko doon mën a xam suñ nekkoon mu tasawif kon dëgg-dëgg suñ réew mii danañ xam ne réew la moo xam ne mu jafe ci réew yi la ndax li fi jox yàlla seen bopp liñ ci xam lañ ci xamut moo ëpp fuuf te loolu lépp dëgg-dëgg yàlla jëlewuñ ko lu may ci mag ñoo xam ne ay mutasawifuuna lañu woon joxoon seen bopp yàlla jeex tàkk ci yàlla mboolem ñi fi jaar ñëpp ñëpp ñi ma a dalee ci suñ maam Cheikh Omarul Fouti yi ndax gisuñ ku ko jiitu ci ñi oote fii l'islam ci Sénégal ci li ñuy histoire jox dana koo xam ne ci tasawuf la doon dund karaama yi koy limal yépp li ko ko may mooy jeex ci yàlla demit nag su ma ko waxee ñi ma waxul ñépp tudd leen ci tudd gi ma ko tudd ndax kum ci bala doo rek am na fu mu jaar ak yow kon nag jëmm jooju nga war ko dugg ñëw ci suñu maam alhaaji abdullah ñëw ci suñu maam alhaaji malik suñu maam cheikh ahmad bamba radiyallahu alayhi ak mbooleem nag seen ak njaboot xam-xam bii lañ doon dund xam-xam bi ci lañ forme seen njaboot ak mboolem nag kër boo tuddut mu ne lu tax tudduñ sama kër mel ni dafa caa bokk ah kay nga leen wóor wóor ne suñ maam imaamu laay ñuy wax tey fii ci jàmmalaay karaama yi koy di ma jot génnut xam-xamu tasawuf moom la naan naan goo xam ne da ngay dégg si katkat ya ne laa ilaha illa allah dañu bàyyi lay jox laa ilaha illa allah baatu laa ilaha illa allah boobu mboolem mutasawifuuna yi mooy code bi nga xam ne moom la ñuy décoté yooyu yëpp yàlla bi yàlla ñu ko yàlla déggloo waykat ba borom ibn Ashir ma nga naan wa qawlu laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu ilahu mu ne baatu laa ilaha illa allahu muhammad rasulullah يجمع كل هذه المعاني كان لسا علامة الإيمان mu ne baatu laa ilaha illallah mboolee maanaa yëpp te maanaa yi biñ si toogee ba léegi li ñuy wax yëpp yooyu la bokk yiñ mënta wax ak yi ñu temps bi mayit ñu wax ko lépp ci maanaa yooyu la ñu bokk suñ la ko bëggee tënkal ma ne la maanaa yi mooy ñetti maqaama yii l'islam liimaan lihsaan muy maqaama diine ak seen manasib yi lislaam am na ñetti mansila ñetti mansilaam yi mooy tawbatu tuub istiqaamatu njub topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taqwa ragal yàlla ñetti mansila yooyu la lislaam am képp koo xam ne yaa ngi ci maqaama boobu ci diina lislaam war nga góorgóorlu boog ba ñetti martaba yooyu nga goreel tawbatu istiqaamatu taqwa tuub delloo sa bopp ci yàlla soo ko defagul sa lislaam rafetagul istiqaamat te ba nga delloo sa bopp ci yàlla moo lay may fanaaw istiqaamatu moo lay may baqaaw te mooy nga des ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ba roy ko amee jikkoom amee ay meloom taqwa mooy ragal yàlla mooy melo ba nga ne moom nga mën a moo mën a sa jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo fa bare koo nga ñëw ci maqaama ñaareel bi mooy imaan bi gëm yàlla imaan moomu am na ñetti mansila ñetti mansilaam yi benn bi mooy sidqu mooy dëggu ixlaas mooy sellal tumaninatu mooy dal tumanina da nga fekk mu nekk jikko boo xam ne mutasawif rek moo mën a amee jikko boobu moom la alquran di wax borom tumaanina ne yaa ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadxuli fi ibadi wa dxuli jannati moom ngay fekk mu nekk ku dal dal boo xam ne ku ko amut sa tasawuf des na lu bëri encore nga jógee ci nga dem ci ñetteeli maqaama bi muy lixsaan nga fekk mu am ñetti mansila mooy ban musa mu raqabatu musaha mu musahadatu ak maarifatu muraqabatu mooy yàlla mi ngay oote wane xam nga ko def to recherche xam nga defal ma recherche duñ wax ku xamut lañ koy def loo recherche wala de daa nga defal ma recherche ci nangam dafay fekk nga xam la ngay def recherche mbaa ka ngay def recherche su ca xam amul recherche mënu faa am yaakaar naa kon muraqabatu mooy ngay recherche yàlla daiman mushahadatu mooy nag ngay jàkkaarloo yàlla jàkkaarloo ku ko xam te buñ la rek mooy gis maarifatu nag mooy xàmmee xam-xam dafa am mooy almu maarifatu dafa am mooy yi soo xoolee ñetti maqaama yooyu nga boole ko juróom-ñeenti mansila yooyu mooy fukk ak ñaar nga dellu ci laa ilaha illallah mooy fukki xaraf ak ñaar kon kot baa ngi noonu boobu buntu caabi bi delloo caabi yàlla yi ci yàlla caabi baa ngi noonu mooy baata laa ilaha illallah waaye du jariñ kenn kenn kenn kenn du ko wax ba jot résultat ba lu may koo xam ne da nga koo jël te ba koy jël nga jël ko ci ndigal fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun garab gaa day faj tànk di métti day faj bopp bi métti nga dem jënd rek naan waxuma da ko faj waaye óorut óorut waaw kon mbir mu ne alquran mi ne waatul buyuuta min abwaabihaa sooy dugg ci néeg jaaral ca bunt mbir mu ne ca bunt ya dañuy jaar mucc door a xam mbokki jullit yi ñoo ngi sant yàlla bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ñaan ci yàlla yal na yàlla defal ñu tawfiq beneen yoon yàlla boole ci xaaj bay fekkee déwén yàlla nangul ñu suñ koor Euh, tabarakallahu nga ne li yàlla diggee ci koor lépp yàlla ñu ko yàlla may yaram yonent waxoon na sallallahu alayhi wa sallam suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi xool leen bu ngeen gisee dog leen bu ngeen gisee mais mu tasami fuune ñi ne nañ fexeel ba sa gi ngay xoor ñoom niñ ko firee ñu ne sa gi ngay woor nii yow jullit bi biñ koy def def ko te fekk yaa ngi gis li tax nga di ko def gis ak xam nag soo xoree ci koor gi xoree te continue gis gi xori nga ne xori wuloo xori dëgg dëgg ci mu tasawifu ne yi mooy fàtte yàlla loolu mooy xori yal na yàlla musal ci fàtte yàlla kon ci mu tasawee fóole yi gis nga ñoom niñ jeexee ci yàlla moo tax yoon ñooy jaam yàlla yi nga xam ne seen tudd yàlla du dogganti mukk daa iman boo noppee dégg tudd yàlla ci seen làmmiñ sax ñu nga continuer di tudd tudd yàlla te lañ koy tuddee lii lépp nag yéenant moo ko fi andi te ba mu ko andee ba léegi jógu fi te ba léegi ay jaami yàllaa ñu continuer di jariñ ci njariñ loolu nañ kowe itte yi te buñ jombalee xam-xam ku mën di doon buñ ne xamu ko buñ ne bokkut ci ñoom nañ xam ne mag ñi dañ daan wax ne xam-xam puso bu réer la mag dana ko far wala dana ko far xam-xam ñu ne puso bu réer la mag mën na koo far wala mën na koo far kon nag nañ leen góorgóorlu yokk suñ ittee te xam ne yàlla li tax mu andi ñu fii mooy li ma déparé woon wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun maa uriidu minhum min rizqin wa maa uriidu an yut'imuun inna allaaha huwa razzaaqu zul matiin yàlla li tax mu andi ñu fii mooy rek li tax mu amal ñu ñu jaamu te Ibnu Abbas nee na li yàlla jublu ci jaamu ko mooy nañ ko xam parce que koo xamut mënoo koo jaamu. kon nañ jéem a ittewoo yokk suñ itte ba mën a xam yàlla ndax ñu mën a xam ne yàlla ñun benn borom rek lañ xam waaye buñ xamul yàlla rek danañ bëri ay borom lool lool lool yàlla mos a ci lool ñoo ngi gërëm soppe yëpp lii yëpp li ko mën a mayee mooy toogaale ci kaw cofeel ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla yàlla boole ñu dafa jàmm def ñu jullit xattan mag ñi yal na yàlla may leen wér gën a guddal fan yi ndax mag yoo xam ne dañoo jox seen bopp yàlla ba mu jeex seeni meloog seeni jëf ak seen lépp di yàlla di saf yàlla di niroog yàlla ñooñu mag wékkal lañ yàlla yàggal leen fi yaram ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax soxna yi tabaarakallaa ñu ngi leen di gërëm bu baax wala rek yàlla yàlla sàmmal yaa rabbi seeni bëgg-bëgg yëpp yal na yàlla matal ko ci anam nga gën a rafet mbokk taalibe yi ñu leen di gërëm di leen sant di rafetlu taxawaay bi leen sant di leen gërëm lii lépp li muy tegtale mooy bëggante ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi mu ngi tagg ñi nga xam ne dañuy toogaale te toogaale wuñ ngir di séddoo ay alam toogaale wuñ ngir ay askan naa dañoo bokk ndey bokk baay waaye dañoo toogaale ngir bëggante ci yàlla ñu ngi leen di gërëm bu baax di rafetlu teewaay bi di leen ñaanal yàlla di sàkk ngeen di ñu ñaanal yàlla yal yàlla bale nangul yaram bi asalaamaaleykum di leen gërëm bu baax di leen sant bu baax te di leen wax ne li léegi ci jamano maa ngi dénk sama bopp ci moytu ko di leen dénk ci nañ ko moytu li ñuy dugal léegi di ko oote woo ci xam yàlla maa di moytu woon moytu loolu xam yàlla du folklore du tànn sa bu la neex du tànn du du du du tëgg du wut fecc du wut jot di merloo sa morom moo xam ne sa bokkam jullit jullit jullit mooy bokkam nañ leen bëggante ngir yàlla alhamdulilah mën naa ne kon yépp tooy nañ ndax àddina nii la ko yàlla bindee li fi yëngu lu mu bëri bëri dafa am ci kaw bopp ku muy tees ñooñu ñooñu toog nii yëg yëg ñu waroon la jooy yëpp tey moom yëg la ko jooyee ko ndax mbir maa ngi bëgg a yàqu seex xasaar yi daf daan wax ne law aalaja tabibul marda bi nafsi dawa la maatal muxsamahum su fekkoon ne ñi feebar ñëpp benn docteur dafa taxaw ne daf leen faj ci benn garab soo moytuwul ñi feebar ñëpp dañuy génn àddina kon ñeneen ñi ñuy faj ci yeneen hôpital nañ leen ko nangu lii rek mooy wax ji comme que bisimilah. alhamdulilah euh, dañ leen di sant ñëpp daay euh, di gërëm ñëpp di sant euh, bi maa ngi nekkoon ci ñoom. ci seen xalaat yu rafet yi nga xam ne am nañ ko ba tax bés bii tey ñu daan ko bokk ak ay mbokk ci yàlla suñu mag alaaji Souleymane Kanté ak suñu mag alhaaji Abdoulaye Thiam daan firi fii alquran ci أنت لي بنيتي وبوية قلبي لأبي الأنبياء بكون فيكونون بالمقدم بأدبي وبإيثار ñu jël bés bii tey dara jaadee ko ñooñu di leen ci fàttaliku yal yokk seen leer yërëm leen jëkkal beneen yoon euh, ñooñu dañoo nekkoon ñu rëy ci ñun euh, Alaaji Abdoulaye Thiam moo ñu daan defar tafsir bi fii waa karama ngi nii toog Alaaji Souleymane Gante ñoo bokkoon nekk fii ci saawiya bi kër Baaba Lamin euh, di ñaar ñoo xam ne ay jullit xaqan lañ xam-xam bii ñu fi waxtaane tey te lott ci trop yàlla mayoon leen ci lu rëy tabarakallah ñu ngi ñaan ci yàlla yàlla yàlla yokk seen leeral barkeel seen gannaaw seen ak njaboot lépp yàlla teg leen ci siraatal mustaqim ba yoon yi tegu woon njaboot yépp man ci tegu yomb na yàlla yal na yàlla def loolu ñu ngi gërëm kilifa kaa bi ca kaw ministre de l'intérieur mënuñ ko ñàkk gërëm mënuñ ko ñàkk ñaanal yàlla ndax tey ci njabootam lañ bokk kaa bii ñu nekk tey ñoom ñoo ko yëlif kon ñu ngi leen ñaanal yàlla ba ca kaw di borom réew mi yal na yàlla def ci réew mi jàmm yal na yàlla ci réew mi déggoo bépp fitna bépp wuute yal na ko yàlla ci réew mi ñun ñépp ñu mën a nekk ay jullit àqal nekk ay jaami yàlla yoo xam ne dañuy àndoo ci yàlla di dimbalante ci yàlla ba réew mi ëllëg buñ fii bàyyeekoo teg ko ci loxo yoo xam ni dañuy taxaw di wax loxo yooyu na leen ba leen seen xel ci ñu fi jógee amee woon réew mi amee ko rafet yal na yàlla dimbale leen ci loolu lépp luy jafe-jafe yal na ko fi yàlla dindi di laaye si bopp di laaye biir mbooleem yàlla yi dëkkoo réew mi ndax réew mi ñun ñëpp am nañ ci war taccoo mënta ñàkk ku nekk kat ci jëmee sa boor mënta ñàkk waaye buñ demee ba nga xam ne yàlla mii fal na na ñëpp ànd déggoo bu fekkee dañoo gis ne intérêt réew a jóg suñ a ah, la xam ne bootee doomam waaye buñ gisee ne intérêt réew mi moo leen tax a jóg nañ joxante loxo àndoo nekk benn jàppalante ci réew mi li ñuy wax askan wi askan wi doon ko gëm waaye kat luñ mën a wax askan wi ak ñu ngeen mën a dig te nanguwu ñoo bennoo nekk benn askan wi duñ ko gëm de. te su boobaa naxuñ askan wi seen bopp la nax nañ àndoo nekk benn joxante loxo ku nekk xam-xam bi la yàlla may nga fee yal réew mi man-man bi la yàlla may nga fee yal réew mi waaye beru fa nga beru di yàq sa mbokk lu mel ni teme te nga ne julli nga ñun duñ nangu loolu nañ àndoo nekk benn nañ dimbalante bokk aar réew mi bokk suqali koom-koomu réew mi ba kenn ku lekk gis sa bopp ci réew mi yàlla ñu yàlla boole dimbale dimbale mbooleem jullit yépp ak fu ñu mën a nekk ci diine lislaam yàlla na yàlla tàppee pare jullit yépp ñu nekk di benn yow mën a yàlla yàlla ñu ko yàlla defal ñu ngi ñaan bu ñuy fekkaat ci waxtu wii di ñëwaat yàlla ñu fekk ñun ñëpp ci xaal ya gën a rafet ci xaal ya gën a sell ku ci dem ci yërmande suñu borom ñu ngi ñaan yal na yàlla sa bental yërmaande ak njëggalam ci yow comme ci fekk yàlla la fekk ci jàmm ak wér ak tal ak koom-koom boo xam ne daf ko mën a jëmee ci li gërëm loo yàlla ak ak yonentam wa maa saalika alallaahi basiis wa salaamu aleykum wa rahmatullah waxoon nañ ne ma santal leen jigéeni kaa bi yëpp boole waa daayira bi ñu ngi sant jigéeni kaa bi yëpp la ko dalee ci soxna Maymuna Jeng ak euh, soxna Kiné Mangane soxna Ndey Jallo ak ñépp mënuma leen a lim waaye ñooñu kat ñooy ñu uutu ci ci des xam leen ne gërëm nañ leen sant nañ leen ngar maa ne loo xam ne ci man nii la déparé yaatal ngeen ñu yéen a ñuy jàppale ci côté bu mu man di doon yal na yàlla fayante ngeen ñépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di gërëm mag ñépp di leen nuyu di leen ndokkeel bu baax suñu kilifa alaaji Massar Sarr ak président alaaji Sema dem na sant ci beneen ndaje boo xam ne man maa ko may pour mu dem ndax lii ñun ñoo ko bokk te kenn ku fi teew rek teewal nga ko fi joxe na ngërmaaneem ak santam su ko defee suñ joxee xëy na suñu kilifa alxaaji Massar Sarr lépp lu ci war a wax dina ko wax incha allah ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla di gërëm nag mbooleem ñëpp ñu ci tudd danañ juum tudd bañ a tudd ka ca des te fekk tudd nañ leen ci suñuy xol ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp. Euh, commandant ñaa mi ngi doon yóbbante ba gor la fee teew waaye moom it maa ko may ñoom yaayam dañuy def conférence ca Pikine mu ne pour soxnaam uutu ko fii Seyda Hamza ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla dëgëral seen i taxawaay fa tabarakallah jeeju ñëpp comme ni ma ko waxee suñu limee danañ juum ñu ngi leen di gërëm daal di leen sant Seyda Roqiya ak Sayda Fatou yéen ñëpp ngeen joxal ma cant gi mbooloo mi yëpp ngeen xam ne ñu ngi leen di gërëm di leen sant soxna Maga ngeen ñuy ñu ko bu baax ah mu ngi ñëwaat ngeen gërëmal ñu ko moom itam tabarakallah li may wax toujours la su lekkee aloom daf koy gërëmee coy man tey lu ma yàlla may ci yéen rek yàlla ko jaarale ci soxna Maga kon moom it duñ di ko sant di ko gërëm tabarakallah di leen sant yéen ñëpp. jant goo xam ne am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem ñu ngi gërëm mbooleem waa xaar yàlla gis nañ muy fi njëkkoon nekk ci xaar yàlla karo suñu yaay mosu koroon ñoom ñëpp ñëw nañ ñu ngi leen di gërëm di leen dokkeel di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla fayante ak ñoom yàlla defal leen jàmm defal ko bépp jullit wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu kon suñ bokk oustaz Omar Niang yi xam ne tey Alaaji ay bokk lañ ay xarit lañ waaye lépp nag Cheikh Omar ñan nii mooy ki nga xam ne moo suuxat loolu cër bu ma yàlla may teraanga bu ma yàlla may ci oustaz alaaji rek yàlla ko jaarale ci Cheikh Omar ñan nii suma jarbaat dégg nga mooy papa yi soxna ñanga ah, di soxna sëriñ bi baabala kii mooy papaam Omar nii ma takkee ak alaaji takke koo xam ne tabaarakallaahu waa tuddee gii ñu ko tuddee bés bi moo tax mu kontaan ci ba tax mu dagg itteem ci fajar la ñëw pour fekkee si jataay bi di ko bëggee di ko wax mbooloo mi ñu ngi koy gërëm di ko sant Oustaz Mourtada ngi nii Oustaz Babacar Ka dégg nga ñu di gërëm ñëpp bi tey suñ mooy sëriñ bi nga xam ne euh, mooy jàngal suñ di ko gërëm di ko sant teew si na borom xam-xam la bu mag fa tabarakallah waaye moom yàlla moo ko tànnaloo rek moom nay làqu rek macha allah ñu koy gërëm di ko sat yaakaar naa ne du ñàkk dana am luñ annoncé biir mbooloo mi léegi su kàddu yu paree rek ñu jéem tënk su ko defee am na xale bu war a mottali fii alquran incha allah ñu bokk ko déglu salaamaaleykum wa rahmatullah boog suñu doom. bismillah kon cant nag kenn ku def ci lu dul nit nit moo yeyoo ñu ne ko sant ndax moo taxoo ak yàlla parce que boo ko yaree lu mu rafet rafet gileem mbaam xar lu tax nga mën a toog di waxtaan ak kon nit dañu mën a toog di waxtaan ak kon nit kooku Eh, sama yaram dafa daw waaye wallahi adduna li lépp kenn ko ustaas alxaaji jaam nekk na koo xam ne ñi nga xam ne tey ñooy ay njabootam ñi nga xam ne ñooy ay bokkam nekk na ci ñoom waaye yaakaar naa ci jàmbur bi fekk ndax dafa taxawal taxawaay boo xam ne am na ci ñoo xam ne seen yëg ci moom yëgut moom it am na ci ñoo xam ne yëgatam ci ñoom dégg waaye rajo yàlla dimbali na ko ba mu dox service lépp ba mu jeex tàkk alaaji sew ko sew ko alaaji suñ kanam la juddoo nga gane see àdduna yaroo ci suñ kanam ba yàlla moom ko alaaji musul def benn fa ci àdduna duuti wax duuti jëf ñu loolu xam nañu ko seetlu nañ ci moom loolu toppatoo nañ njabootam yaakaar ne bu fekkee ne ci ñu góor ñi ñëpp teewu ci alxuraan itam ñu néew ñoo ci taree gun waaye lu bëri toppatoo na ne ñëpp pare ñu alxuraan alhamdulilah muy koo xam ne kii xam-xamam dem na waaye wallaahi su fekkoon ne ni mu mel nit ki buy dem àllaaxira mën nañ koo téye ba du dem kon nag waa ji dinañ téye du dem doomu ma nga nële Muhammad mooy doomu tey doomu bu mag alhamdulilah jàng na tubaab jàng na arab ba am na licence am nit yu bare bare alhamdulilah may ñaan nag yàlla guddal fan ak njëkk te yàlla tënkal leen seetaan alaaji fi nekk nii buñ doon wax tey ba jant bi soo wax ay ngëneel la te dafa nëbb ba dem alaaji dafa nëbb ba dem yàlla joxoon na ko xam-xam yoo xam ne du xam-xam téere yi nii ñuy tafsir rek yooyu waaye alaaji yàlla daf ko làqaloo woon xam-xam mbóot yoo xam ne yii daan dem jàmm gën suba teel la fa daan dem ci benn góor ak ëpp di ben jàng benn leçon bu nekk ñetti junni la daan fay xam-xam boobu mu doon ci alaaj te musu ko waxee kenn musu ko xam ci moom ak yeneen yoo xam ni alaaj yi gëstu nu ko dafa gëstu woon lépp ba pare rek noppi yàlla def ko muy ko noppi yàlla def ko muy ko maanu yàlla def ko muy muy ko teg ni ko yóbbu alaaj yi bi muy jànge yaayam dafa mosoon a sonn ci moom amul benn benn benn kilifa bu nekkoon te dëkk ba te yaayam yëkkatiwul addiyee jox la ko la la ñaanal sama doom ji njàngam barke am muy góor muy jigéen moom ci boppam sax yaay ko daan yónni demal ci sa yaay ji wala ci sa papa ko jox ko lii ne ko la la ma saan waxtaan ci moom rek a jooy di jooy tuuru roog a ñam muy koo xam ne kii mu nekk na yàlla sàmmante ko tafsir bii mu commencé woon fii alaaj su may wax ci moom kenn mënut wax ci moom li sama nijaay bi tey wax léegi ne li tax kenn mënul wax moom bu jeex mooy yàlla dafa yaatu yàlla du jeex moo tax suñu mbokk la suñu rakk la keroog bi ñu ma waxee ma jot leetam ne yaayam génn na àdduna fekk maa nga màkk dama leen armal soxna su yiw soxna su baax soxna soo xam ne sii dëkk bi yëpp xamoon nañ ba tax na nag demal bii nii métti la ko waaye nag sante nañ ko yàlla ndax li waroon lépp lépp def na lépp def na te yàlla ñu ne Cheikh bi jàmm dem na Makka alaaji def na lépp jàngale na jàng na jàngale na yar na njabootam ci sarata mustaqim ba léegi man kër bi mënu ma faa taxaw te yaakaar naa njabootam xam nañu loolu ci man jëmm ji jëmm joo xam ne bii kenn mënul wax moom ba jeexal ko muy alaaj dama ne day masifa bi te nii bi mu bëggee ku koy tafsir fii te moom mën naa tafsir kenn ndax ko mën naa ko bu baax a baax moom mën naa ko waaye wàccee boppam que nit saa yoo yëkkatee sa bopp rek daaneel na sa bopp da ngay bàyyi li ñu yëkkati moo gën ndax xam naa ko moom amul duñ koy laaj ci këyit te du ko topp te mooy li gën a néew bànne ni moom waxu moom lu nee la jàng lu nee la gëstu moom moom ñu nit ñi fàttaliku alaaji ak Kanté mi nga xam ne man li ma xam ci moom Kanté dafa taxawoon koor nit nag bu taxoo koor am na boo xam ne bii doy na sëkk dafa taxoo woon koor ku maanu koo xam ne kii ku doyoon waaw ku doyoon waaw la muy koo xam ne dem na yóbbu na ngërëmal sëriñ te ku ànd ak sëriñ bu mat sëriñ nga dem yóbbu ngërëmam kooku mën nañu ko seede ne ñëpp yóbbu na ngërëmal yonent bi yóbbu na ngërëmal si ak yóbbu na ngërëmal yàlla kon lii yóbbu leen rek di ñaan ci yàlla moom te mu jii nga xam ne mooy taxawal jii si la yàlla Moustapha nii na ko ñëpp ñaanal yàlla may jot askan man day gis ma tey ci kaw suuf ku ko gën a baax loolu waxuma ko pour tàgg ko rek boo ko doon ndax moom xam ne da koy naxal dana nangu nax yooyu noonu defal leen dafa bëgg te réeru naka ko réer du jaay lépp lu mu ñàkk te loolu ku ko xam man nga seede ci moom loolu moom nii ci liñ xam ñun ci liñ xam ñun ñu bokk dëkk nekk ay tout tànk ba fii ñuy waxee nii mosuñoo xam ci sew sew du wax bu jëf yàlla dimbale na ko ba mosul tarfat te boo ko ci yeex bu baax boo ko ci yeex bu baax di sëtu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass te ku ko xool da nga xam ne kii ci bàyyi la bokk kon su ko yàlla dimbalee ci itti yii may wax lii ma nga ne Baba Lamine bu yëkkati daayira da ko teg ci loxoom dara la dara la te ñoom ñëpp am képp koo xam ne kii def nga ci moom mu dee la yar ngeen ànd di dimbalante ci yàlla téye ko te bu baax a baax man daal loolu laa xam moom waaw du seetaan ko lokk mukk du seetaan ko sonn mukk ci àdduna xanaa mu ñàkk ko xam-xam te ku nekk moom di ko déglu da nga am xam-xam sa xam-xam dana rafet te ku koy roy ci jikko sa jikko dana baax a baax ko dana rafet parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko yàlla defee te nee nañu képp ku ñuy noddal ñu ngi lay yalul waaye bu la na baax la kon ci yàlla yi foofu rek la ma yàlla kon nag wax bi mënuñ cee sori waaye alaaji daal xam naa ne kenn mënu moom loo wax ci moom lu mu tuuti tuuti desale

def nga li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ca ijjatul widaa taxaw wax waxam ju rëy jooju dafa wax saxaaba yi na leen ku ku fi teew fal yuballiqi saa'idil qaa'id képp ndax jotal naa allah hal balaqtu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ndax jotal naa ñu ne ko waaw ya rasulallah mu ne hal balaxtu laxdatal naa ñu ne ko waaw ya rasulallah mu ne kon nag fan yu bañ a gis saaidil xaayib ki fi teew na ko jotal ki nga xam ne nekku fi kon nag jotal boobu yow yow Seyd Moustapha moom tey jii jotal nga gën ngaa jotal daa nga jotal sax waaye tey gën ngaa jotalati leeral nga bu baax ci tasawuf kon tasawuf bu ko déggee bu baax ci yow li nga wax daanaka mooy defar xol rek da a waxoon ci xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne inna fi inna fi jasadi mutqatun isa salaha salaha aljasadu kulluhu wa isa fasada fasada aljasadu kulluhu kon daal tasawuf mooy fexe ba xolu jaam bi baax te bu baaxee dafay feeñ ci saayir bi ci jëmm ji ci ci jëf ji bu jëfee mu baax bu jëfee mu sell bu bu jullee mu baax bu joxee asaka mu baax bu jëflante ak jaami yàlla yi mu baax loolu mooy tasawuf tasawuf kon defal jaam bi la kon te loolu leeral nga ñu ko ci ci biir waxtaan yépp ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla gudd fan ñu ngi lay ñaanal yàlla wër gu ak yàgg fi bu baax a a a yi nga xam ne taalibe yi la topp yépp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm comme temps bi dafa xat ñu noonu suñu ustaas Mortar Diouf jawle ko ci ñi nga xamante ne nii ñoo koy bi muy suñuy kilifa yoo xamante ne nii ñuy ànd fii alhamdulilah seen ànd rafetaloon nañ ko ak mbooloo mi ndax àndee nañu ci xam-xam di ñu jariñ ci bu ñu mënee. suñu mën lu sax di góor góorgóorlu te ànd ak liñ fi wax yépp ñoom waxuma la ñoom mag ñi waaye ñun ndaw ñi sax damay wax na ñoo leen gën a xam ndax mag ak li ko yàlla may ci xam-xam ak ay dayo su demee ba mën a wàccaat ba ndaw du ko taxawloo ci mbedd di wax ak moom ala kulli xaalin kooku ku mën a seedeel mbaax la kon yal na yàlla leeral seen kanam seen ginnaaw ci noonu lañuy jàllee ci délégation yi nga xamante ni nii ñëw nañu ñëwal leen ñoom ñaar ci seen muy waa kër rahmatullahi alayhi suñu papa suñu ustaas alhaji abdullahi Thiam ci seen jiital ki nekk ci seen kaw di Serigne Birane Diop naka noonu Mohamed Khalifa Thiam ci délégation bi ci la ànd ak Ahmed Tidiane Seck naka noonu Mohamed Thiam ak Modou Kouta ñu di leen di ziar ñoom ñëpp di leen tatagal naka noonu ci wàllu suñu kër papa rahmatullahi alayhi Souleymane Kanté ki nga xam ne mooy Mariama Kanté teew na macha allah ñu koy tatagal naka noonu ak Khady Gaawaan Kanté naka noonu ak Modou Niass ak ñi ñu ànd ak ñoom ñëpp ci loolu ñuy gërëm it ñi nga xamante ne nii teew nañu ginnaaw boo xamante ne nii tatagaloon nañ ñu jotoon a yegg si muy suñu papa alxaaji Seydou Ndour macha allah ñu di ko teewal di kontaan ci teewaayam en tant que mag ku yàq imam ci kóllëre naka noonu imam alxaaji Ousmane Ndiaye macha allah moom it teew na ci mbooloo mi ak imam Serif bi tey am naka noonu suñu tata Maymuna Dieng mi nga xam ne moo jiite jigéen ci kan ak képp koo xamante ni nii dëkkandoo la ku teew ci jotaay bi nañ ko. su ko defee suñu noppee dañu ne woon ne dinañu joxe kàddu ku jëm ci. papaay daayira bi naka noonu ak yaay daayira waaye gis nañ ne sànq suñu tataa Adja Daba dafa am soxla moo tax mu gaaw dem waaye wàkkil na suñu tataa Adja Fatou si ne incha allah mën na wax ci palaasam naka noonu balaa loola dinañu jox euh, suñu papa. ñu ngi fi daje yëpp ci nekk maa ngi nuyu ci euh, man Moustapha laa koy wooyee. ndax sama relation particulière yi ma am ak moom waaw euh, di félicité waa daayira bi ci sujet bi ñu proposé waaw parce que muy sujet actualité ba pare ñu jox ko koo xam ni daf koo xam waaw waaw parce que du sujet boo xam ni ku nekk mën ko tere ki ko jox daf ko mokkal waaw man miy wax am na yu ma yu ma bari fi jàng yu ma noté sama sama baat yoo xam ne xaw ma ko fii laa ko xamee rek nit lu mu xam-xam am na ko ku ko wax ci alxuraan waaw moo xam li ngeen def muy prolongement la ma fekkee démb rek la ma fekke démb fële ca golf conférence ba sëriñ Muntaga Cheikh Oumar doon def démb ca golf te ma fa ànd ak Moustapha Bitey bi te am ay teex-teexal yoo xam ne moo tax moom fekk fekkewu ko waaw mais duggoon nañ otoom ba ñuy dem ñun ñu def accident fii ci koñ bi après ñu ngi mais moom mu am yeneen soxla yoo xam ni yu ko bett la moo tax fekkewu euh, conférence ba Ibrahima Aïdara surtout Seydina Mohamed la ko surtout Cheikh Ahmed Tidiane la moo doon def conférence ba sur la fraternité entre Seydi Nourou Tall et sunu papa Abdoulaye Dabakh balaa xamee sax ni Seydi Nourou Tall amoon na 42 ans de plus que Seydi Abdou waaw. te ñu nekk ñu na mu nekke woon ak sëñ Abdou Aziz waaw mu mu dëggal li Moustapha wax léegi ci suñu borom ku ko neex lay gidee suñu borom ku ko neex waaw waaw moo wéetal boppam bokku la kenn dara lu ko neex lay def mm-hmm. waaw dégg mu nekk ñu donc démb diggante euh, Seydou Nour Tall ak Serigne Abdoul Aziz Sy waaw ba euh, Thierno Bachir Tall dëkkee moo tëj conférence ba mu dëkkee dafa wax loo xam ne dafa méngoo li Moustapha wax léegi mel na daf ko fekke waaw parce que bu muy tëj nee na kuy doo kuy euh, sëtu Cheikh Cheikh Oumar war nga fagaru war nga jàll waaw ba jëla mel na sa maam waaw war nga jàll moom la ko léegi ni xam-xam bi ak euh, suñu borom ñu muy seet ci seet yi mag bi seet yi xale bi waaw loolu wax donc loolu laa doon wax ci euh, pour ñu ñu rek ci ñaanoo suñu borom may raté conférence bu mel nii ñaar euh, koy defal at parce que yi ñuy dégg c'est des puits de science noonu la yoo xam ni euh, ku ko fekkee ku fi jóge am nga loo xam ni yóbbaale ko loo xam ne xamuloo ko ci mu wax moom waaw damay damay regretter toujours man quelquefois ay absence am parce que dañ koo soxla dañ koy wax parce man euh, je dis ce que je pense soxla moom nii dañ soxla waaw donc. Euh, 40 personnes quelquefois dañuy nekk ci ay njà njàqare waaw njàqare ci jàkka ji suñu jàkka ji waxuma si suñu jàkka ji mais si jàkka suñu borom parce que jàkka ji moomuñu moomuñu jàkka ji jàkka ji ñëpp ko bokk dégg nga. démb wax naa ko ni ko nettali naa ko ce qui s'est passé dinaa ko bëggoon ngaa ñëw mais da am euh, teq-teq moo tax moo tax dikkuloo. waaw loolu da nga wàññeeku waaw wax naa ko mais xam moom yaramam neexul yaram neexul ku gis ni mooy loolu def déplacement ni ma rek mooy ne rek nga nuyul ma ko euh, nii maa ngi leen di ñaanal seen conférence boobu mu doxee na mu war a doxee loolu la wax. donc euh, wa waa daayira yi la wax waa daayira yi donc daayira ba nekk fële loolu leen Basiru wax Thierno Basiru li ñu nekk nañ ci nekk doo nekk euh, surtout Cheikh Omar surtout Cheikh al Islam ba pare nekk leneen lu dul ñoom ca lañ nekkoon war loo ko def donc loolu la amoon na wax rek ci daal di su sewoon ak ñëwoon dana baax ci kàddu yu gàtt yu fasaxa yi su ko defee dañuy jox ki nga xamante ne nii suñu ustaas la di mag di wóolare ci imam yàgg ak moom muy ustaas Babacar Ka mu fekkoon ni incha allah mu sànni ci ay kàddu bismillah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi bu baax eh, lool ci loolu bi nga xam ne fekkee nañu ko ci weeru mag bi euh, di di di sant gi suñu mag Omar Niang euh, di suñu lépp daal suñu sëriñ Mor Talla euh, di sant wala mi fi yow ak Moustapha nag suñu Moustapha nag mu wax ci moom dana jafe lool waaw yomb na waaye dina jafe ndax. Euh, suñu diggante dafa yàgg lool te dafa xool lool xam naa ne mënuma wax li war a am euh, dama jaar ci koor waaw ñu koy ñaanal yàlla daal waaye fi mu duggee jéeg yàlla may ko lu koy joxoon ndax euh, nit la ko xam ne ku mu àndal ku ne rek dimbale na la ku mu àndal ku ne taxawu na la. xam ne ku ne des day ne ca kanam dina eh, la wax si ak loo baax baax baax baax eh, dalay féetu kanam dina la wax si na ko ñu bokkal eh, nekk depuis boobal yàgg na man na presque bëgg na quarante ans moom ànd ñu nekk benn di guddee bëccëg Euh, kon euh, kon naa ne di wax waa daayira bi ah, na ngeen sant yàlla bu baax ndax yàlla may leen njiit may na leen bu baax may na leen sëriñ sëriñ boo xam ne sëriñ bi suñu sëriñ waxoon ne sooy wut sëriñ na nga wut sëriñ mën woon rabbiyan qadiran naasian kaamilan faaqihan saalihan waaw sëriñ sëriñ sëriñ boo xam ne a yàlla boo xam ne ko xam la xam ne njiit la ko boo xam ne imaam la te yooyu yëpp dajale ci moom kon sëñ Moustapha nii euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla liñ bëgg wax ci moom mën ñu ko wax ndax euh, yàlla dafa na ko tuuti boo xam ne euh, ba mu xamante ne moom diggante du man moom ah ñu war a daje benn bis ñu ngi bis sàngam saa si nañ dëkk sàngam rajo Diouf ci guddi yàlla wan ma sëñ bi wal ma turi yàlla bi nga xam ne moom nga yor ah eh, daje bu ñu dajee ñu gisante la première fois mu ne ko yow de yàlla boole na ma yow yaa tur sàngam yor nga ko eh, leen na ma ko jox lii mooy boole lii moo am boole si musiba eh, kon wane boobu yàlla wan ma ko ba seet ñu daje ñu door di gisee kon yaakaar naa ne la loolu foor la ñu ànd yi ànd ko eh, rafet mu wër di Dakar ma nekk fii eh, ñu ànd mu passé ma loolu eh, dañuy bëgg sa tey bi loolu muy wéy kon ñu ñu ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi ñu ko ñaanal yàlla yàlla may ko maqaama maamam Cheikh Islam El Hadj Ibrahima Niass te bu ko yàlla defal ci wilaaya sariat ci xaqat ci marifatu ñu ñaan yàlla yàlla dafa ko woo ndax moom euh, xaw koo gën a baax waaw damay wax ne euh, képp koo dàqaa joxe da nga ko ëppale képp ku ëpp yërmande nga gisuma ko koo xam ne foo toll yaa ngi ci dugub nit jaral na lu ne ñu jaral na lu lu ne ñu jaral na ko kon ma wax Adisa tafi ñu yàlla yàlla yàgg la yàlla defal la tawfiq ak tachir ñu yàlla mos ko ci moom muy jaam ak yàlla boo xam ne ah mu ngi nii làqu ci gannaaw waaye soo demee dëkkam da nga xam ne mooy kilifa ba waxuma da xam ne yàlla def na ko kilifa waaye da xam ne mooy kilifa ba. ba pare jël lépp nag sànni ko fële doy ko dara waaw siyaare bu mag lay am foofa tund wa yar dañuy ñëw boo xam ne baayam moo fa nekkoon kilifa tey jii mu nekk tey dafay fa baayam di dundal loolu siyaare boobu moom dañ koy defal toujours fer la mooy ci may faral di dem foofu tabarakallah mi ngi ànd ak ba tey mu kóllëreem soppeem Cerno Moustapha ñoom ñëpp ñu Kaolack lañ jógee tey jii Thierno mu ngi Kaolack la yii yëpp waaye mu ne conférence bi du ko tardé macha allah kooku moom sax na ñëw na fan ngi leen gërëm dañ di leen euh, sëñ Diour wax dëgg yàlla kooku moo tax sax da nga ñëw ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax Cheikh Ahmed Tidiane Diop ñu ngi ko bëggoon a jox kàddu ah dama xam ne kenn ku wax waxal la ñëpp te temps bi fi mu nekk nii jigéen ñaa defar war a dem defari am na ñoo xam ne sori nañ. moo tax maa ñaan rek nañ dagg kàddu yi fi nekk nii ñu ñaan yàlla dem julli tàkkusaan ndax moo gën a ëpp solo euh, yeneen kàddu yi ngi gërëm ñëpp sant ñëpp man maa ñaan nañ yemale fii rek kàddu yi ku nekk war naa wax Thierno Amdi tabaarakallaahu ngi leen di gërëm leen ñëpp rafetlu teewaay yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci yi raay ngi leen di gërëm leen ñëpp di leen ñaanal yàlla fan yu gudd ànd ak wér soxna Margo fa mu nekk sori na dëgg na ci ñëw ci mbooloo mi moom it ñu ngi koy gërëm kuñ gisul nañ xam ne xal bi gis ne la soxna Seynab ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen nuyu di leen dokkeel di leen ñaanal yàlla yal yàlla dajalewaat ñu fii waxtu bi déwén te déwén daa xam ne ren ñaan rek jël microphone bi rek pour ñu arrêté kàddu yi te dem julli ji moo ëpp Mouhamed Bachir bi tey euh, war na am kàddu waaye dama ñaan rek dama ñaan dama ñaan ñëpp rek. ñu déglu xale yi nga xam ne ñoo war a mottali ñu dem julli bi